برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين inna rahmatullahi qaribun min al-muhsinin yërmande yàlla jege na ñeel way éwénal yi yal nañ ci bokk ñun ñëpp mooy dellu leen nuyu di leen ndokkeel ci weeru koor bi di ñaan yàlla nanguñu suñu koor comme ni ma ko ñaanee woon keroog di yàlla jàmm ci réew mi ak ci Afrique yëpp ak ci adduna bi yëpp képp fu jullit nekk yàlla na

te ñëpp doon ci wax ci àddina bi yëpp di téléphoné mënatuñoo lekk mënuñoo naan mënuñoo nelaw ndax problème bi nga xam ne amoon na fi ci Sénégal bañ dem ba wax ci Yérim Post ci xalifa bi ba wane ne xalifa Cheikh yi dafa génn àddina bi mu xewee ñu bëri def nañ ay sorties man mii ci laa bokk waaye li tax ñu def ko defoon ko mooy nit ñi tawat yi ñu doon tawet ak situation yi nga xam ne ci lañ nekkoon il fallait que ñuy wax ak ñoom biñ demee ba gis ne wax ji am na pour defal leen pour ñoom ñëpp ñu delluwaat ci seen bopp delluwaat ci yàlla waaye yàlla def euh, Cheikh Yérim Seck comme kii am yerim pastu bi ñu wax yerim poste la yerim poste mu ñëw bi mu ñëwee ñëw na julli si naafile Medina Baye dégg ngeen li mu wax. dem na ci xalifa bi Cheikh Ahmad Tidiane dégg ngeen li mu fa wax dégg ngeen ci jumaa ji bi mu demee tamit li mu fa wax loolu ci.

fii ba wane ne moom taalibe la ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu anhu ba indi ay preuve waaye njuumte dafay am mais njuumte du bàkkaar bu ñu wax na ne fi nga xam ne foofu lay liggéeyee seen bureau bi am na benn xale ndaw soo xam ne moom moo jëloon information bi am fu mu ko jëlee rek sànni ko ci internet bi mu tasaaroo ba ñëpp di wax ba am na ñu koy oo façon dégg na façon wax bu nekk waaye bi ma ko jotee li ma ko wax mooy noonu rek la parce que nit moom nit ku baax ak nit ku bon ak nit ku yi ñuy wax yëpp nit nit rek nit ku nekk dina am loo xam ne yàlla daf koy wàcce ci moom am na ci yoo xam ne dinay nekk problème mais danay mujj nekk njëriñ te lii nii gis naa ne loolu ci njëriñ lay mujj parce que wax naa ko sax wax nañ téléphone mais nee naa ko saxaaba yi ci seen bopp soo gisee am na ay ay alquran yu wàcc ak ay hadis yoo xam ne ñu ngi koy doxal ci lislaam kenn ci saxaaba yi wala dañ ko daan def wala ñu laaj yonent bi wala am lu créé wu yàlla wàcce leeral alquran su ko defee nit ñëpp xam ne lii ci la nit ñi jàpp moo tax

léeg-léeg nga déglu benn xale muy tari alxuraan waaye dafay mujj gàkk donc nit ku gàkk ci liggéeyam loolu erreur lañ koy li li li ko dal erreur la erreur nag nit ñu bëri dañuy euh, njuumte ak bàkkaar ak kufru njuumte nag mooy bi nga xam ne loolu moo dal waa Sénégal yi ba mujj gi moom mu jot information bi ci bureau ci benn xale joxe ko ci turam waaye bi mu ñëwee leeral na ñëpp keroog maa ngi koy dégg muy wax sama rak Sëriñ Mbay naan ko da nga am kun kun maayam nga am waaye man dama gis sax ne Sëriñ Mbay moom moo ko wax ne ko yow da am kun maayam parce que le fait que mu jugee Dakar wala xam fan la jugee woon keroog. wat mais lu mun di xew rek moom ñëw na ba Medina mu ñëw ci xabru Cheikh Ibrahim dem ci xalifa bi dem devant le xalif porte parole bi Cheikh Mahi Cissé ñu wax problème bi jeex kon yéen taalibe yi maa ngi leen ñaan yéen tam ñu bàyyi yëgu mu ndax njuumte moom ñëpp a koy def waaye ku nangu def erreur foofu la grandeur nekk moo tax ñu koy félicité tamit

njuumte mooy li nga xam ne dafay daal ñëpp mais zëm bu moom mooy bàkkaar xam nga njuumte moom comme day daal ñëpp lu oyof la du bàkkaar mais zëm bu moom mooy bàkkaar maanaam lu la yàlla digal mu óor na lii yàlla def la koo digal defoo ko lu la yàlla aaye mu óor na lii yàlla def aaye defoo ko loolu mooy bàkkaar boobu tamit moo tax danga war a tuubal yàlla mais ñoom moom ak suñu fóor kufru nag mooy bi nga xam ne danga dem ba génne sa bopp weddi yàlla bokkaale yàlla génne sa bopp ci lislaam ak sa ci ngëm yàlla su boobaa loolu moom moom la ñu kufru mooy ne yow dañ laa kafarloo da nga da nga nekk yéefa su boobaa nag tuub rek moom moo lay mën a dugalaat ci lislaam mais ñoom li leen gaar dawlu yooyu yëpp erreur la boo xam ne am na te accepté nañ ko ñëw nañ jéggal nañ ko mu jeex te yàlla wax nañ ci alxuraan yàlla wax nañ afallaahu amaa sëlëf yonent bi netteel nañ ci ñu ko yàlla nee nañu yàlla jéggale na li passé comme yàlla jéggale na nag li passé jullit dafa war a jéggale li passé yonent bi sallallahu alayhi wa nag jullit suñ ko tooñee koo xam ne suñ doo mer suñ la defee lu la métti doo mer yow doo nit waaye koo xam ne tamit soo meree doo bàyyi dangay jàpp rek su boobaa tamit nee na yow tam baaxoo doo nit moo tax yi jàppoon yëpp bàyyi nañ ko te maa ngi digal mboolem kuy tàll bi ak soppe yooyu yëpp nañ ko bàyyi bàyyi nit ñi ñu dem dellu seen liggéey

àdduna bi tey tamit bi nga xamee ne jeex na te defe naa am na ñoo xam ne ñuy denc ay benn benn ay yéene yoo xam ne du noonu wala ndar boobu tamit damay génnaan wax leen xalifa bi comme bàyyi na loolu te loolu mooy du ko jullit kilifa doon bàyyi set yi mu xaddam yu mag yi boroom xam-xam ñoom ñëpp bàyyi nañu taaliba yëpp nañu bàyyi lu jeex te xam ne kii mbokk la soppe la xarit la te wax na ni sax taaru bi la kon nañ bàyyi rek euh, su ko defee loolu mu jeex ñaan yàlla yi nag ngeen ñaanal ko yàlla musal ko te dimbale ko ci liggéeyam parce que koo xam ne da ngay liggéey sa réew surtout liggéey boo xam ne dafa ànd ak ay risque mm-hmm. ku mel noonu su ñëwee may la dëgg dëgg man ci faylu bi laa bokk kooku da ko war di yàlla di ko sàmm te maa ngi lay ñaanal yàlla musal la te maa lay wax ne la taalib ba yëpp incha allah dinañ la ñaanal yàlla musal la continuer nga def sa liggéey ndaw si nga xam ne tamit moom moo def erreur ci boîte bi kooku tamit na nga ko jéggal ñu continuer liggéeyam parce que moom tam yi dina si jëlee benn expérience boo xam ne daf koy yokk ci liggéeyam mais du ko wàññi grandeur bi nga am ba ñëw jéggal xalifa bi am grandeur boobu pour wane na na jeex yow tam na am grandeur boobu kooku nga jéggal ko moom tam mu continuer liggéeyam gannaaw loolu ñuy wax euh, gars yi ne leen niir àddina niir ak tey dafay neex suba mu naqari waaye tërki mu naqari woon na lool ci dégg-dégg yi waaye tey wax ji tamit war na neex lool ci xol yi ñu ngi gërëm di la ñaanal yàlla ñu ñaan yàlla taalibe yi ngeen ñaanal ko que bi ma waxee ak yéreem li ma wax mooy man daal sëñ bi maa ngi sàkku ñaar man te maa leen di képp nangu ak man lii nii nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu ko ñaanal yàlla yokk ko ci liggéeyam te musal ko te musal mboolem yi journaliste yeeg euh, état opposition beeg sëriñ seeg sëriñ si tamit mu leen di ndokkale ci weeru koor bi parce que ñu ci koor te sëriñ dafa am responsabilité yu mag yoo xam ne dafa tëru seen am na benn waaye maa ngi dégg benn bés mu naan président Macky Sall Sénégalais yi dañu am seen kóolute yëkkati lu rëy muy réew mi jox la kon danga xam ne ñi la ko jox óolu la moo tax ñu jox la waaye loolu tamit sëriñ si tamit senegal yi dañ leen a jox lu rëy parce lu am ni ngëm xoli nit ku koy jël jox la ko deseetu la dara comme nag taalibe yi ak mbokk yi ak jullit yi deseeratu ñu dara parce que jox nañu lépp lu la dal ñuy bëgg a dee kooku tamit ñooñu da nga leen a war a traité noo xam ne dëgg dëgg dinañ yëg seen bopp seen diggante ak yàlla dinañ yëg seen bopp seen diggante ak seen bopp dinañ yëg seen bopp seen diggante ak kilifa ak yërmande ma nga xam ne loolu dina gën a defar seen dund moo tax ñu leen di oo ci ñuy yërm yërëm taalibe yi ak peuple bi leen ñaanal yàlla di leen dimbale su ko defee di ñaan yàlla tamit réew mi yàlla def ci jàmm parce que loolu rek loolu la ñu nit ñi yaakaare ku ne nag da nga am sa domaine ñi ay avocat lañ ñi ay journaliste lañ ñii ay ay malañ ay imam ñii ay professeur avocat ñii doom ay grammaire ak science politique ak édeb yooyu yëpp ñu ñaa ngi koy jàng ñu di jàng histoire waaye ku ci nekk rek li ngay jàng soo ci jiitalee gëm yàlla rek da nga mën dimbale ñi nga xam ne ñoom ñoo ci yaakaar yal nañu yàlla dimbali ñun ñëpp te ñun ñëpp wàcce suñu bopp xam ne ki gën a wàcce boppam kooku moo gën a dimbali nit ñi ki gën a wàcce boppam moom moo gën a mën a dimbali doomu aadama yi am na ñu nekk ñu sonn lool mën nañoo fexe ba ñu ngi bëgg a àgg seen ay kilifa mais mënuñoo fexe ba àgg ci ñoom ndax suñ demee ba jub leen wala ñu jub seen kër rek léeg-léeg ñu tasaat ay nit ñu ba mag leen wala ñu dàq leen wala ñu wax leen loo xam ne dootuñ ñemee dem wala duñ mën a dem su boobaa yaakaar yu tas yooyu yal na dafay gën a métti yal nañ yàlla dimbale di dellu di wax Cheikh Yérim ñu ko def di leen amoon rek leen di gërëm di leen sant di jéggalu su fekkee ne wax nañu lu a wax wala def nañ lu war a waaye li ñu on nit ñi rek. mooy ñun ñëpp ñu dellu ci jàmm su ko jox ñu ñuy naan.